Kedede Madinah Tiji Madinah Waitman Ya Rasulullah oh. Ya jaramaga, Sanggabaga Madinah wow. ayu Madinah Waitman Ya Rasulullah oh. Ya jaramaga, maga Kelegan kakogan nabe kogan ma di ko wayal ya rasulallah woo oh. ya rasulallah ku partage vidéo bi yàlla na yàlla faj say aajo ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam këla gën ka ko gën nabee ko gën ndeeg baay moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li Cheikh Seydi El Hadj Malick wax ni parparloo sax du mbiram wante am na dëgg gu mu mënula tudd bañ a tudd te mooy ni yonent bi moo gën ñépp waaw te moo gën ñéppit ci wàllu ndey moo gën ñéppit ci wàllu baay loolu la gëm loolu la santaane xikma piir la yonent bi juddoogul baayam juddoogul maam ji ko war a yar yàlla tàmbalee ci moom yar di ko yar di koy yar di koy yar ndax ku war a yar Muhammad fokk ñu yar la